quel discours yéen a ngi wax ni lu bëri Macky Sall réalisé na ko parce que yéen nekkoon premier ministre di wane seen pragmatisme léegi ban discours ngeen mi offrir parce que on parle de Amadou Ba candidat de la continuité yéen vous prônez une rupture totale wala dafa am loo leen di euh, continuer am loo leen di effacer voilà qu'est-ce que vous allez offrir aux Sénégalais comme discours. voilà donc c'est comme dit mon patron hein. Amadou Ba il dit que lui il est le candidat de la continuité nous nous le candidat de la rupture. xam nga pourquoi. Hmm. oui oui et c' est comme disait mon patron l' jour xam nga Sénégal ñu ngi def emprunt obligataire deux cent milliards heure bi ñu ngi wut deux cent milliards. pour. oui emprunt obligataire parce que manque d' argent. maanaam ñu ngi wëriwaat ay bor ñu ngi wëriwaat deux cent milliards emprunt obligataire heure bi est ce que l' état doit à chaque fois ñuy wut ay emprunt obligataire emprunt obligatoire. pour sunu emprunt mais évidemment heure bii may wax ak. mais heure mais, mais le ministre de non, de l'économie li mu ñuy prôné ci. efficacité budget non emprunt deux cent milliards sur le marché. regarde les yokk ci bor yi ñu fi. mais moom laa lay wax c'est vrai que est-ce qu'on doit continuer comme ça. Ah, c'est ça nag que le patron dit nee na non on peut plus continuer comme ça. emprunt obligataire emprunt obligataire emprunt obligataire mais parce que. mais ki ñëw mais moom la la c'est que c'est comme on dit c'est que c'est là nag où il faut opérer les véritables ruptures d'abord il faut que nos ressources nous reviennent nous nos ressources minières nos ressources gazières nos ressources pétrolières c'est que il faut que ça appartienne au peuple sénégalais il faut mu nekkaat suñu patrimoine bopp. sinon comme il dit c'est de l'économie extravertie da nga fii ñëw tu de grosses usines de grandes de grands trip mais tout ce qu'il gagne après c'est pour amener ça à l'extérieur est-ce qu'il faut continuer comme ça et comme il dit dire que est-ce qu'il faut grandir avec les Sénégalais en dans la dans la dans, dans l'exploitation des ressources ou est-ce qu'il faut laisser tu vois une certaine partie du Sénégal grandir et laisser l'autre partie muy gën a gàtt ça il faut changer ça c'est pourquoi il dit lui quand il arrivera ça va des ruptures comme ça qu'il va prôner pour que le Sénégalais pour que tout le Sénégal tu vois pour que le Sénégal grandisse ensemble donc de pas comme il dit way ñii di gën a gudd ñii di gën a gàtt non et loolu lii moo koy indi c'est des choses comme ça c'est pourquoi c'est pas un candidat de la continuité c'est un candidat de la rupture parce que comme on dit il y a les de la Banque mondiale ils vont jamais t'amener la rupture ñoom c'est les Amadou Ba. <laughs> non si, de Bretton Woods moom les institutions de Bretton Woods moom ça il faut mënuñoo permettre kenn mu mais mënuñu ko depuis 63 ans ñu ngi nii di ñu accompagner on peut pas se développer. mais on doit se poser des questions est-ce doit continuer comme ça non je crois qu'il faut changer complètement parce que aussi xam nga tant qu'on pas souverain économiquement. tant que nos ressources ne reviennent pas ñu yóor ko ñun ñoo ko moomal suñu bopp mais ça va continuer comme ça ils viendront tous te dire que oui enlève les subventions écoute fais ceci fais cela et puis tu es sous leur diktat depuis combien d'années depuis après 45 ba léegi ba pare nga bëgg a développer tu veux continuer tu vas jamais développer donc c'est pourquoi moi patron il dit que non il, faut changer tout ça xam nga kon sa patron ku nekkoon un long combat parce que jékki-jékki rek en fait dafa mel ni nguur li ñuy wax dëgg la dafa mel ni pour non may ma yëgali dafa mel ni li ñuy wax ci nguur dëgg la nguur gi boo ci nekkee da ngay mel ni ku ku ku ku say bët lëndëm da ngay nekk ci benn chambre noire doo gis boo génnee nag tout de clair mais oui, parce que discours yi nii en réalité tu sais les gens aussi ils disent pas ce qui se passe à l'interne table conseil des ministres c'est pas doux hein c'est des c'est des débats de fond est-ce qu'il faut continuer à aller avec les institutions de l'autonomie il y a deux cas il y a que non chaque jour c'est des débats comme ça. mais boo demee ba xam ne ni jëmul kër boo xamee ni jëmul kër lan moo la tee nga tekk sa ndombo delloo leen ko yow nga mën a féex mais da xaar ba ñu non non non non non xam nga en réalité aussi gis nga comme je disais gis nga naxe ba falu moo gën fital ba falu naxe naxaate ba falu ak naxante ba falu moo gën fitalante ba falu pour man xam nga lu tax. fitalante. non fital. moo gën dóorante ay bal ba falu. xam nga en réalité qui décide c'est le président de la République on a un régime hyper présidentialiste fii fii c'est le président ki décide yow mën nga am sa position ne mais man je pense que par exemple euh, man autorail moo ma gënal. ñoom kay leer na ku ci wax kay danaan conformément à la vision du président de la République mais finalement. c'est le patron qui décide. oui et ça c'est depuis Senghor et Mamadou Dia ce régime présidentialiste amoo dara loo xam ni mën nga ko fi def te président d'accord ci. mën nga am de très bonnes idées. mën nga am c'est pas le premier ministre qui définit la politique. mais non du tout du tout yow da ngay ñëw tu vas tu es sûr que écoute écoute ça ça ne marche pas mais sa patron quand il te dit que moi j'ai décidé de sa lan nga ci man il avait pas les il avait pas ce pouvoir hein. le pouvoir il est c'est un pouvoir du président de la République et c'est dommage malheureusement c'est pourquoi nag il prône également qu'il faut qu'on fasse souffler les institutions quand il arrivera parce que aussi benn nit rek mënul defar dëkk ak benn institution il faut que institution yi aussi retrouver seen véritable pouvoir cest que les institutions aussi bien le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif tout ça je crois qu'il faut opérer des ruptures et des réformes profondes c'est pourquoi nous on prône la rupture